jëlee nañ ci abi hurayrata yal na ko yàlla gërëm mu ni yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ni képp ku bàyyiwul wax ju ñaaw ak jëf ju ñaaw ci bëccëgu weeru koor yàlla amul benn aajo ci bàyyi gi nga bàyyi sa lekk ak bàyyi gi nga bàyyi naan xadis bi buxaari yu moo ko solo